Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Indonesia ya, filmnya jam. Satu-satunya. Dan gua kan sok ini jarnya yang jam dia sih ada jam sistem. Émission bi ñu doon defal question réponse chaque mardi Anda cek usah Samb xam jika nam tu tuuti rek ci kàttanu yàlla ñu door ko asalaamaaleykum wa rahmatullah ak ay asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi di nuyuwaat Oustaz Samb ñu lay ziaraat bah baax kon mana nañoo door bi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 di ko sunu borom tabaraka wa taala fas ci wat ak yeen sunu emission bi di laaj ak tontu ñu ci and ak alustaz Cheikh Abdou Sow mu mel ne sunu laaj bu da fay laaj mu ne ndox ngi moo xam ndox ngi ni mo xamne da dafa yàgg fi barab lol masalan nañ ko fa taaj mu yàgg fa lol ba soppiku man na soppiku ba yor couleur bu verte comme ni nga xamne ndox bu yagge wala mu soppiku ci walu tiafka wala xet mu ne ndax ndox momu manes na ko laabe ngir tontu ci loolu dañuy wax ne su fekkente ne dara yu sobe dugg ca ba léegi mën naa làpp su fekkente ne ndox lu mu yàgg-yàgg fi barab ba soppiku te dara ci sobe dugg ca ba léegi teewu ko mën a làpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na layu tahurun laa yunajjisuhu shay ndox dafa laab dara mënu ko tax a nekk sobe lu may rek sobe dugg ci nag borom xam-xam yi tamit dëppoo ci ne ndox su fekkente ne sobe dugg ca lu mu yàgg-yàgg soppi googa muy soppeeku jëm ci wàllu wert wala mu yor beneen couleur wala xet gu xaw a naqari wala yu mel noonu loolu du tee mën naa sangu mën naa jàpp mën nañ ko jëfandikoo ci wàllu làpp loola dara nekku ci wallahu taala alam jërëjëf Oustaz ci tontu bi beneen laaj bi mooy jur goo xam ne maanaam dagan naa dagan lekk lan mooy atteem ca sawma wala neefere bi lan moo ci atteem alhamdulilah euh, laaj bi nga xam ne dafay laaj mu ne jur gi nga xam ne daga naa lekk mel ne juri kër yi muy nag walla xar walla bëy wala gëléem lan mooy atteb ay nefereem wala am sawam ak ndax bu la taqee danga koy raxas wala déet ngir tontu ci dañu wax ne gépp jur goo xam ne dagan naa lekk ay neferam am sawam ay yuutam ay loram ay rongoñam lépp lu laab la bu la taqee it wala mu taqee ci yére raxas ko du la war ngir bëgg a julli soo bëgg a julli jarul nga di ko raxas bu la neexee mën nga ko bàyyi noonu ba nepp julli ci te du ci yàq dara lii firnde ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mënees naa julli ci fa nga xam ne mooy géttu xar ak géttu bëy ya mënees na faa julli te ku ne xam na ne géttu xar ak géttug am saw sawum xar ya mën na faa nekk ak seeni nefere ak yu mel noona waaye julli ca barab yooya dagan na mu des nag bu dee e, goorukaayu gëléem maxaatinil ibil foofu moom yonente bi saa tere na ku fa julli waaye loolu nag tekkiwut ne sawum gëléem wala neferey gëléem dafa laabut déedéet ndax lu laabut ab julli du ko lekk te yoon saa salaam joxe na ndigal ci ñu mën a naan sawum gëléem walam soowam ak yu mel noonu kon ma ak soowma yëpp ci wàllu daga wàllu euh, laab ñoo ca bokkub àtte kon gépp jur gu dagan a rek ay na fereem ak am sawam mag ay rongooñam ak yëpp laab na wallahu taala alam jërëjëf ci tontu bi mbokk ngi tamit boo xam ne daf noon nodd fekk courant coupé muy laaj na xam bi courant bi ñëwaate ndax mën a noddaat wala déet alhamdulilah mbokk mi nga xam ne dafay laaj mu ne waxtu nodd dafa jot fekk courant dafa coupé ñu noddu euh, nodd goo xam ne gu suufee la xay na nga xam ne daal demul ci rajo bi waaye mu ne avant ñu julli courant bi dikkaat mu ne ndax mën nañoo baamu nodd gi waa wala déet euh, ngir tontu loolu dañuy wax ne su fekkente ne am na yeneen barab yoo xam ne nodd nañ fa te dégg nañ ko ba xam ne waxtu julli yu jot na kon su boobaa nodd ko du aaja bamtuwaat waaye su fekkente ne nag courant dafa kuppe woon fépp nga xam ne kenn déggul ak noddu kon su boobaa mënees naa noddaat ndax lii jubluwaayum noddu mooy yëgal nit ñi ne waxtu julli yu jot na xëy na nodd gu njëkk kenn dégg ko woon ñu bëgg nag nit ñi dégg ko kon su Quran bi di kaate te fekk julli julleeguñu euh, laa ba ñu baa mu waat noddu ga ca kaw ndax nit ñi mën koo dégg wallahu taala alam jërëjëf Oustaz ci tontu bi xam naa loolu lañu fi amoon ci ay laaj am naa di wax lañ doon wax rek képp koo xam ne yaa ci groupe bi rek nga am question mën nga koo ratal ci groupe bi wala nga jël ñu hors bu ñu egsi waatee ci waxtu wi rek ñu jàllale waat ko Eh, ñaan yàlla may ñu dégg ak topp yàlla defal ñu tawféex gudd fan ak wér gu yaram ak jaamu yàlla ku ñu nangu ñu ñaanal ñëpp jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah